na euh, ci euh, jàmm euh, ni nga xam ne sax noonu la ko ñenn ñu bari xëy na doon foogee noonu la la mujjee jaam mu di rek bàyyi goo xam ne am na si mu ñibbi këram ginnaaw bu ñu ko dégloo ndax sax c'est dans l'ordre normal des choses maanaam bu ñu dégloo nit xëy na ñu bare bari war nañoo mën a njort que ni dañ koy bàyyi mu ñibbi këram donte nag jamono ji xëy na mbir yi xaw naa daanaka tar lool ci côté journaliste yi waaye terewul en tout cas ñu bari bari ci ay mbooloo ci taskatu xibaar yi ñoo fa nekkoon léegi sax bi mu génnee dégg ngeen ko ak yi nga xam ne moom la ne ci kanam tuuti di ngeen ko am euh, mu di jaajëfal bu baax a baax askanu Sénégal rawatina itam ñi nga xam ne ñëpp en tout cas ñoo doon soucié wu bu baax ci euh, moom moomule ak son sort ak itam sax déglu gi nga xam ne moom lañ ko war a déglu mu ñeel affaire Pape Ndiaye waaye itam leneen loo xam ne wax na ko moo di ne notifié luñ ko que ni day demaat ak yooyu noonu donc en tout cas mën nañoo jàpp que ni fala mbir yi euh, yam mu di déglu gi ñu ko war a euh, déglu euh, ci mbir yi Pape Ndiaye mais aussi daal di nay sàkku itam ci askan wi ñu baal ko àq ndax nag moom kàddu yu mu yëkkati moo di ne nit ñi doon nañu sonn ku ci nekk itam yàq sa yiite boobu ba léegi di laajte fan la mujjee léegi nii sax maa ngi jot ay message ak i appel ku nekk di laaj fan la mujjee en tout cas lépp mujjee na ci jàmm Moustapha Diop mii ngeen di jàkkaar lool tey bu soobee suñu borom dina fanaani ci ak njabootam ndax génn commissariat central waaye nag sunu naataango yi fa nekkoon yëpp ñu di leen jaajëfal ñoom ñi nga xam ne ñoo fa tax teewoon euh, ngir euh, daal di koy soutenir euh, ginnaaw rek buñ ko waroon a déglu Théodore Semedo loolu sax la ñuy dooree waxtaan wi xëy na du gudd ginnaaw nit ñëpp en tout cas ñi ngi doon toog di xaar fan lay mujjee waaye lépp mujjee na ci jàmm mooy bàyyi nañu Moustapha Diop mu war a ñibbi këram en tout cas ginnaaw buñ ko dégloo ba noppi ndax sa jàpp ak jàpp amu ci woon ko doon déglu dong waaw loolu la woon parce que am comme euh, maanaam euh, c'est normal nag dans l'ordre des choses peut si euh, lu yëf yoon la nga xam ne ne bu ñu gisee ne par exemple reporter wala journaliste si biir kër am na directeur information mu yëkkati yenn kàddu yi ñu njort ne ah comme yëkkati na yenn kàddu yi foog ñu oo ki nga xam ne mooy njiitam est-ce que bu muy joxee kàddu yi xëy na moom dafa cautionné wala dara ñu déglu bon déglu ça pas dire que dañ lay yóbbu wala dara. Mm-hmm. boo déglu woon bon yàlla def na si jàmm je crois que bon euh, li nga xam ne mooy kii mooy bàyyi nañ ko mu ñibbi këram et peut-être euh, li nga xam ne moo am mooy poursuite bañ am mais ñu ngi ñaan tamit encore euh, sunu naataango bi nga xam ne moom Pape Ndiaye mu ngi foofu ak ki nga xam ne muy Coro ñu ngi ñaan vraiment yàlla génne leen si situation bu ñu nekk. ñoom tamit ku ci nekk dellu seen seen kër waaye ñëwaat encore si kër gi continuer def seen liggéey. Mm-hmm. ndax loolu sax en tout cas itam niñ koy defee saa su nekk suñu xel dem ci ñoom ñaar mu di Coro Diouf euh, nekk euh, moom itam ci loxoy yoon yàlla na fa génn ci nu mu gën a gaawee nag nu mu gën a gaawee je le répète euh, delluwaat ci ak njabootam ndax jamono ji soxla nañ ko lool ak fi nga xam ne itam moo di tolluwaayam mu delluwaat ci ak njabootam en tout cas suñu xel yëpp mi ngi ci ñoom ak itam suñu xel dem ci suñu beneen naataango boo xam ne talaata bu jot sax altine bu jot ñu daan nekkandoo fii ci l'édition émission du soir mu di Papa moom itam yàlla na dellu nu mu gën a gaawee encore une fois je le répète euh, ci ak njabootam moom itam ndax fii lañ leen soxlaa ñoom ñëpp ah, euh, mu di nag loo xam ne moom lañ ci nemmeeku mais teew dafa am loo xam ne aussi euh, nit ñi dañ koy wax ci la presse et son avenir d'ici la présidentielle de 2024 en dehors même de l'affaire Moustapha Diop démb gis nañ taskatu xibaar boo xam ne encore une lu ñuy wax ndékk la hmm. ndékk xam nga boo déggee loo xam ne tey ndég bu ñu jara sampal laaj ndaxte fu mu nekk nii euh, tiitaange am na mooy euh, fan la presse jëm chaque instant convocation wala dara loolu aussi dafa nekk loo xam ne euh, problème mu liberté de la presse ci liberté de la presse boobu nag dafa am plusieurs choses yoo xam ne tey dañ ko war a tegaat ci ci raay bi tegaat ko ci raay bi mooy lenn benn ah ñii dañ leen faloon pour ñu yokk liberté de la presse mais pas remise en cause des libertés de la presse te ñun loolu lañ amoon yaakaar ci euh, njiitu réew bi pour que condition de euh, presse yi mu am benn condition de travail de euh, décent mooy c'est-à-dire liggéey bu mucc ayib nga xam ne dina naat këru entreprise de presse yi mais tey benn affaire moo am liberté de presse bi remise en cause tey ku nit wax li leen ñu convoqué la ak yooyu mais beneen affaire tamit lay fenêtre lay ubbi tey mooy le problème des assises de la presse parce que tey nag jot na tamit presse bi tamit ci biir presse bi ñu def pootu biir néeg pootu biir néeg nag moom foo ñu def ko. Mhm. loolu bon ñu ngi agité ay problème assises mais assises yooyu ñu war a def tamit kan moo si war a bokk ak kan moo si war a bokk parce que tey ñenn ñu ngi ne. dafa am prolifération presse bi ku nekk day xëy tey yore carte de presse jëg xëy na carte nationale am na mais aussi. benn problème moo gën a am boo xam ne ne ñu ngi koy kii nan lañ def ba am infiltration ci loolu parce que tamit am na benn seetaan seetaan bi mooy yow boo ñëwee politicien sama sama xam naa ñoom di dina ma xaw a mere mais ñoom ñooy autorisé ñoom ñooy autorisé ku nekk yore li ñuy wax micro bu ñu autorisé ku nekk micro bon bonjour aussi l'anarchie an foofu la foofu la désordre bii di am moo tax tey nag question boobu question liberté de la presse boobu. dafa nekk loo xam ne ne bu ñu demee nag ba bàyyi ku nekk nekkul jàngul droit des médias jàngul leen yore micro di ñëw di jël ñoom politiciens yi xam nañ ko ñu ñëw parce que sol nañ seen benn lacoste ak yooyu ñu bàyyi ko parce que arrangé ne leen. mu communiquer ni leen neexee. ñu daal di saaga ku leen neex ëllëg ñoom population bi du ñu xam ñu ne journaliste yi mais journaliste du ku nekk moo nekk journaliste. loolu aussi il faut que question boobu ñu posé ko tey. il faut que ñu posé question boobu. waaw di wàllum liberté de la presse xëy sax fileeg le 3 mai dinañ ci gën a yaatal bu baax a baax ndax booy bis bi nga xam ne moom lañ jagleel liberté de la presse au Sénégal moom en tout cas y a manger en tout cas xëy na sax bu la neexee nga yóbbaale si dessert fi mu nekk nii ndax bëri na ci loo xam ne <laughs> euh, nit ñi en tout koy waxtaan ci wàllum liberté de la presse ak nekkee euh, bu na kantee xëy na ci lu gàtt rek mbir moomu leen ndax liberté de la am ne nit ñi yaakaaroon nañ ko régime mu di le régime du chef de l'état Macky Sall mais finalement gis nañ fi mu mujjee mooy bëri na ay arrestation ay convocation de journalistes te loolu yëpp amul diggante daanaka ba fi ñu toll mais bi moom tàng euh, donc euh, képp koo xam ne teg nañ ko loxo rek du loo xam ne dañ ko koy yéene parce que suñu sañoon ñëpp nekk ci jàmm parce que man loolu laay wootee toujours mais da ngeen euh, laal ponk bu am solo muy liberté de la presse. Hmm. mais sooy wax liberté de la presse aussi je pense que presque aussi am na ay devoir parce que toujours dama koy faral di wax ta liberté s'arrête ou commence celle d'autrui liberté absolue amul fenn soo remonter un petit peu nga jël le contrat social par exemple de Jean-Jacques Rousseau mu ne ci société bi dañ fay nekk mais il faut que mu am ñuy renoncer à une partie de la liberté pour mu am jàmm parce que toute liberté absolue anarchie lay andi soo xoolee des philosophes comme Hobbes c'est la même chose mu décrire le Léviathan qui fait le peur ah mais kooku parce que l'État aussi a le monopole de la puissance publique donc société dañ koy organiser suñ ne liberté de la presse c'est pas quelque chose boo xam ne amul limite lu waaye neex def lu waaye neex wax mais la presse a aussi des devoirs te foofu la ñuy gisee ne parfois day soxe parce que man dama jàpp un journaliste balaa ngay génne ay information da nga koy sourcer c'est-à-dire pour la manifestation de la vérité on doit informer donner la bonne information te parfois dinañ gis ay informations yoo xam dañ koy génnee mais sourcé wuñ ko te dëgërul et je fais référence à l'affaire Nixon aux États-Unis mais c'est un journaliste moo dem creuser ba gis ne fii dañ doon def espionage et ñu teg procédure impeachment foofu la Nixon a été destitué mu démissionné donc journalisme du caaxaan du foo du da ngay ñëw rek takk sa rajo commencé di wax mais dafa am une formation. laaj na éthique. laaj na déontologie mais mais prolifération bi nga xam ne ku ne da ngay dem rek. fenn rek mais foofu foofu laay ñëw ni Linguère rek. Mm. Linguère ñaata rajo yoo xam ne parfois aussi. foofu foofu laay ñëw mm. donc y effectivement une déréglementation parce que tamit on peut pas mettre un policier derrière chaque journaliste derrière chaque sénégalais dafa am yoo xam ne ñun ñoo ko war a jommal sunu bopp. jël rek takk sa rajo di wax naka su dul noonu di yàq turu nit ki di yàq askanu nit ki di wax noo xam ne du noonu mais loolu tamit war nañ ko xoolaat même su dee état sax nekkul sa ginnaaw je pense que ku nekk da nga war a am benn éthique de responsabilité et c'est ça le plus important l'État mm-hmm. vraiment au niveau de la réglementation gis ngeen ne lépp lu ci war ñu ngi koy def mais dafa am journalistes yoo xam ne ils sont encagoulés ils ont mm. des rôles purement politiques. parce qu'on voit de plus en plus des chroniqueurs yoo xam ne. ñu demoon jël carte sax ci benn parti politique moo gën a yomb buñ deful buñ ah? deful leen loo xam ne yoon da koy tere aussi bu leen même buñ nekkee non mais justement mais wàllum yoon la ñuy wax est-ce buñ deful leen lu yoon tere est que mën nañoo jël tey benn nit xëy na sax foofu la ñuy jeexale pour bañ a mm-hmm. sori trop mm-hmm. mais est-ce que war nañoo jël benn nit tey tijji ay chef d'accusation yoo xam ne daanaka ñu bari buñ ko déggee dañuy dar loxo seen gémmiñ euh, parce que c'est des chefs xam ne doo xam sax finalement fan lay jógee Issa xam naa la tu es équilibré kenn tegu la loxo yaa ngi ñëw di liggéey chaque jour di wax di ñibbi hmm. mais am na yoo xam ne dafa am ay limites yoo xam ne soo ko franchiré yow yaa koy assumer sa bopp loolu dootul journalisme te par moment nag suñuy toog di waxtaan ak sénégalais il faut ñuy ñeme di leen wax dëgg fu ñu mënta féete hmm. fu ñu mënta far hmm. li ñu gis ni c'est pas du journalisme te vraiment su dee nag suñu axulaay taalaa la ñuy wax ngeen xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi génnee information yoo xam ne sourcé wuñ ko dëgërul fiable loolu mooy andi diffamation yi ñuy gis. Mm-hmm. de plus en plus. Mm-hmm. donc avec euh, les réseaux sociaux. avec euh, internet gis nañ ne affaire yi dafa jaxasoo ba commencé euh, laal ay parties yu sensibles de la société te loolu tamit war nañ ko xoolaat. journalisme c'est bien mhm. liberté de la presse c'est bien mais la presse a également des devoirs mhm. la presse a des devoirs Théodore Semedo ngir jeexal ci ponk boobu noonu euh, mi ngi koy wax aussi euh, potum biir nekk sànq yaa ngi koy wax ci journaliste yi mais est comme li ma wax sànq rek euh, des fois chef d'accusation yi ñuy gis quand même du xaw a tiital ñu bare bari loolu c'est un grand problème mhm. mooy c'est-à-dire que euh, parfois da ngay gis yenn kii dossiers yi da ngay tiit cest à charge yi moo lay moo lay tiital naan lii nu mu mën a amee waaye nag lu si mënti am man pour man y a des responsabilités partagées mm. ndax nguur gii di autorisé moom galaa muy autorisé war na def enquête pour xam ndax waa ji il remplit toutes les euh, tous les critères mais mu ñëw par exemple gis benn nit kese parce que homme d'affaires la xëy na bokk na si moom mu autorisé ko mu ubbi rajo muy politicien mais bu ko utiliser bras armé pour di pour di pour di liquider ay adversaire am ak yooyu mais il est responsable mm. il faut que que ñu ngi ku nekk jël sa responsabilité nekk jël sa responsabilité si ni mu waree. Mhm. ñu teg affaire bi ci yoon. parce que tey nag quoi qu'on puisse dire y a des choses am si si ñun ñun aussi ñun ñu ngi nii am nañ ay ay ay ay ay kuréel par exemple association presse en ligne 15 ans nit jiite ko kooku war na tey keneen ñëw seen.